ba tey ñu ngi si woon si xaraf yi nga xam te ni benn mas kasara muy alxuruful maksura ñu continuer si wala ñuy jot leçon bu bees bi ñu réviser bi passé incha allah si si chi si di ti zi ay ré ñu fas yéene dugg si leçon bu bees bi doon wax na di ko xool bu baax baax pour xamee ko bëgg ñëw a jàng mu gumba léegi jàng góor dañuy benn mooy jàng boo xamante ne dangay tari bi jam rek te doo xàmme xëy kii li ni ni hi wi yi yi bi nag waxoon nañu daam ñaari tomb suuf xëy kii li mi ni hi wi yi leçon bi mooy suñu dernière leçon ci xuruful jar yi nga xam dañ leen a maas ci suuf